te euh, ku ci am néew rek am na ñaan yoo xam ne ni euh, euh, daf la war loolee Marianne defe naa moom la ñu tuddee fi daaw mag ñi wax ci yu am solo nga ci. waaw mag yi lu am solo Pape Cheikh ndax fi daaw baat bi déjà lu muy tekki mooy jot. Hmm. jot nag suñ koy wax mooy mën nañ ni nga am sa benn mbokk ñu jàpp ko otage. Hmm. fayal ko rançon par exemple. Hmm. wala kenn koo xamante ne dañ koo jàpp prison ñu ne dañ koy laaj amaan yow nga fayal ko. donc comme jot boobu la nag suñu borom. borom nag képp koo xamante ne daf la toppee dara ala kulli xaal dina la xisaab si sa ay jëf mm. jot bo fi daaw boobu nag mooy jotale euh, ki nga xamante ne mooy jaam bi ay jëfam ngir suñu boroom mën koo jéggal yàlla nag pour mu jéggal nit ki doo taxaw si si digganteem nan ko doo ko fi mbugalee li nga mën a def rek mooy ay ñaan mm. ñaan yooyu nag mag ñi dañ ci amoon ay subtilité lan lañ ci wax ñu dem xool élément bi ñu dellu siwaat ci plateau bi mooy jot jot nit mooy ñaan rek àdduna nga koy tinul yàlla nga koy tinul yàlla pour yàlla jéggal ka loolu moo tudd fidaaw xam nga fidaaw nekkul texte boo gis ci alxuraan nekku ci alxuraan amul benn yoon buy wax naan bu nit deewee nañ def lii ko amul ci alxuraan kon kon fu ñuy xooli kon dañuy xooli waxu yoon sallallahu alayhi bi ñu xoolee waxu yoon sallallahu alayhi waxu ci lu bare maanaam alxuraan moom ba muy wax ñaan la wax rek yoon sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee feddali wax ñaanal nit ku dee waaye sa alayhi wa sallam li gën a siiw lu mu daan def moom mooy qul huwa allahu ahad qul huwa allahu ahad moom am nañ ci ay firne yu leer ci loo xam ni dégg nga yoon sallallahu alayhi wa sallam ni daawoon na génn àddina dégg nga ñu defal ka limu mu qul huwa allahu ndax yoon sallallahu alayhi wa sallam dafa bëggoon ay juróom-ñaar dafa bëggoon ay limu dégg nga lim yu tool ay onze ay quinze 70 yonent bi dafa bëggoon lim yooyu. waaw fidaaw ci kër Seydina Limaamu salaa salaam moom ñaan yi nga xam ne moom la ci joxe mooy fidaaw bi moom dafa am benn jàngat bu mu ci am dafa ni dañu koy defal ku fi jóge te ñi ko koy defal dañuy doon ñoo xam ne tey ñoom ñoo fi des ci ginnaawam léegi moom mu gis ni li nit kiy defal boppam mu ëpp doole liñ ko defal moo tax moom ci kaw loolu dafa am benn tasbiix bu mu jox soo ñëwee ci ñun da koy fekk ñu mu taxaw taxawaayu tasab ginnaaw soo jullee julli julli juróom yi ba pare da nga koy def léegi nag def googu nga koy def day euh, day doon loo xamante ni mooy sag fi daaw kon yow boo fi jógee dootul la doon daje di la fi daaw ndax defal nga ko sa sa bopp te lépp lu nit kiy defal boppam moo ëpp doole lu ñu ko defal ci ginnaawam. tasab bi mooy boo julee ba pare muy suba di tisbaar di tàkkusaan timis wala geewe da ngay jàng bismillahi rahmaani rahim téeméer. teg ci alhamdulilahi rabbi alamin téeméer teg ci wala daalina amin téeméer teg ci amin amin moom noonu la ko jàngale waa këram doo ko tëjee nag ñaan gi nga xam ne moom la ñu jàngal muy inna allaha wa malaykatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman sallallahu taala alayhi wa ala alihi foofa nag moo xam ne ñu ngi jëm ci jamono ju xat boo xam ne nit ki dina bëgg a ñaanal waajuram yi génn àddina te du am jot mu ni boo tolloo foofu ñaanal nga leen wa ab bi ñaanal nga sa pap dontu mu ngi dund wala mu génn àddina nga ñaanal sa yaay wa zawjati wala wa zawji bu dee góor ak jigéen du nu yem ci kaddu yi wa wala di wa zuriyat yi nga ñaanal ba ñaanal say sët looloo tax sax boo tolloo foofu dinga ñaanal borom kër gi nga xam ne yow xamagoo kan la doon ak at boo am waa yow yaa ngi commencé di ñaanal jëkkër ji ngay am te xamagoo ko yaa ngi ñaanal soxna si ngay am te xamagoo ko yaa ngi ñaana say waajur dont ñu ngi fi wala nekkoon fi loolu la dugale ci biir maam Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu waa këram moom ci boppam xaw ma fi daaw exact bu mu joxe waaye Cheikh Alhaji Abdoul Aziz radiallahu anhu bi nga xamante ne bii ne ñun ñëpp moom la ñu miin dégg nañu ci làmminam mu ne moom fi daaw bi gën a siiw bi nga xam ne ni moom la tàmm joxe fu mu dem mooy 114 bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim ñëpp d'accord nañ ci ne alquran secret bi yëpp mu ngi ci suratul fatiha secret suratul fatiha yëpp mu ngi ci bismillahi rahmaani rahim te alquran téeméeri saar la ak fukki saar ak ñeenti saar bu ci nekk am bismillahi rahmaani rahim am na ci benn boo xam sax amul basmala muy suuratu tawba waaye boo demee ca biir suuratu namli dafa fekk innahu min suleyman wa innahu bismillahi rahmaani rahim mu mel ne day remplacé cent quatorzième euh, basmala bi nga xamante ne bi ne moo war a nekk ci alquran cheikh alhaaji abdul aziz radiallahu anhu nag joxe woon 114 bismillahi rahmaani rahim mooy li nga xamante ne bi ne dina dugalaale secret alquran mu mel ne kon ki génn àdduna ñu jàngal ko 114 basmala defal nañ ko fidaawu boo xamante ne bi ne yàlla mën na cee jégg jéggal ko ay bàkkaar boo koy def moom euh, fidaawu bi da ngay def fatiha salaatu ala nabi boo mënee salaatal ki nga xamante ne na def ci euh, euh, la ilaha dégg nga soixante-dix mille loolu daawoon na ko defal nit ku génn àddina daawoon na defit sept mille ci bismillahi rahmaani rahim bokk na itam sëñ Abbas li mu daan joxe fidaaw loo xam ne moom barewul daanaka loolu daf ci xaw daf ci xaw nekk particularité mooy yaa gafuuru yaa rahimu bu fekkee ni nombre bi tabarakallahu euh, bare na daawoon na joxe ay soixante-dix mille dégg nga euh, ci euh, yaa gafuuru dégg nga yaa raxiim mbokk yi mu ngoog euh, euh, fi daaw euh, ku ki nit ki dem moom ay ñaan rek la soxla soxlawul leneen soxlawul leneen papcher ay ñaan rek la nekk loo xamante ne moom lañ ko amal. léegi nag euh, ñaani nag ngir suñu borom jéggal ko euh, baax na ñu ne mu nekk loo xamante ne dañu koy gaawee ndax euh, fi daaw su gaawee Pape moom moo gën. donc nit ki su fekkee dafa génn àdduna moment bi nga xamante ne ñu ngi koy defar laataa ñu koy denc fi daaw bi Pape Cheikh na tàmbali ci jamono jooju. Hmm. léegi bu bu weesoo heure boobu bu fekkee munoo ko def jamono ji nga xamante ne moom ñu nekk di ko préparé mun nga ko def suñ ko dencee ba pare ñu def ko. wala euh, ñu xaar euh, comme nit yi ñu koy defee fii si biir semaine bi mu gaañu mun nañ ko def mun nañ toog ay année mais euh, comme dañu wax ni moom mooy jot ngir loo xamante ne suñu suñu borom mën na cee xool pour jéggal ko donc yaakaar naa ne koo koy defal doo ko yéene mbugal donc bëgg nga mu def ko ci nu mu gën a gaawee pour suñu borom gën ko jéggal donc wax nañ ko mag ñi niñ ko si defee fi daaw bëri na ay façon mais ñeent yi si gën a siiw mooy comme nuñ ko waxee laa ilaaha illallah soixante-dix mille lixlaas dix mille basmala dix mille wala suratu yaasin ñu koy def def 41 bokk na ci mais euh, bokk na ci loo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi daf ko joxe woon ndax lépp loo xam ni ñaan la bu ñu ñaanal néew rek mun nañ ko tuddee fi daaw Pape mhm. donc li yonent bi sallallahu alayhi waxee mooy bu ñu bu ñu defaree nit ki ba laxas ko Pape Cheikh laataa ñu koy denc baax na euh, pour ñu jàngal ko ci bopp bi li nga xamante ne mooy suratu yaasin euh, mhm. dem ci tànk yi jaaral ko jàngal ko suratul mulk léegi nag dafa amoon wayjuru jigéen wu Seydina Alioune mu ñu koy wax Faatumata bintu Asidin dafa nekk koo xamante ne euh, yonent bi salaay salaam daf ko soppoon mu nekk ku soutenir jàppale ko mm-hmm. donc Fatoumata bintu Asedin moomu bi mu génnee àdduna yonent bi salaay salaam dafa dugg ci biir bàmmeelam tëdd fa lu yàgg génn ñu doog koo denc te mantoom la ko la ko sàngee woon hmm. donc paay bu saaxoo ñuy déglu ci ay waxtaanam mu ne Faatumata Bintu Asedin moomu euh, su nit génnee àdduna laataa nga koy dugal ci biir pax bi su fekkee da nga ci bind Faatumata Bintu Asedin doog ko see teg ñu ñu suul ko yàlla mën na def néew boobu suñu borom jéggal ko hmm. soxna Xadija bi soxna yonent bi salaay salaam bi mu génnee àdduna yonent bi dafa defaat même chose donc am na borom xam-xam ñii ne Faatumata Bintu Asedin mën nga koo bind ñii ne mën nga bind également Khadija pour ñu mu nekk koo xamante ne dañ koy jéggal donc loolu tamit mun nañ ni euh, façon fi daaw la waaye itam comme ni ñu ko déggee ci mag ñi nu ñu ko nu ñu ko waxee euh, dégg nañ bu waa kër Sidna Limaamu dégg nañ sëñ Abba Sall dégg nañ également maam Abdou Aziz Sy nuñ ko nu mu doon wax 114 basmalay mais Pape Cheikh am na ñoo xamante ne dañuy faral di def 1434 basma la ndax dañuy wax ni nombre si di ci nekk si si suñu yaram 1434 la. Mm-hmm. donc dañuy def basma la 1434 def ko ay kind def ko ci nakk yi nga xam ni moom la ñuy joxe. Mm-hmm. ci dëj yi bu ko defee képp koo xamante ne lekk nga ci ci nakk bi nga ñaanal euh, néew bi loolu tamit bokk na ci ay xeetu euh, fiddaaw donc fiddaaw yi dafa bëri Pape Cheikh basmala yi euh, laa illa illallah lépp am na si ku si nekk ak lim bi nga xamante ne moom nga siy def waaye li ci am solo Pape Cheikh ñu xam ko mooy euh, nekkul nit ki génn àdduna kese la ñu war a defal fi daaw yow mi nga xamante ne yow yaa ngi dund pendant que yaa ngi dund Pape Cheikh mën nga defal sa bopp li nga xamante ne moom mooy fi daaw nga jiital ko ci li nga xamante ne moom mooy sa sa bàmmeel donc fi daaw bëri na ay njëriñ yoo xamante ne mm-hmm. euh, wax nañ ni ku ko def Serigne Abbas day wax ni soixante-dix mille laax illa laay mm-hmm. mu ne waxuma ku ñu ko defalul du texe de waaye ku narta texe kenn du ko defal soixante-dix mille laay laax illa donc mag ñi dañ temps bi bëriwul pas cher. voilà ñu tënk ko fii rek. voilà c'est cher bu euh, defe naa mag ñu.